dërëm kàngay na bu mu daal. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. fi teew màgg ci nuyoo mooy asalaamaaleykum. waaye ci Golf xew bi ki xew di Balla Gaye numéro 2 tey ñu ñëw fekk fi yëpp ngi nii nga xamante ne ci làmb ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di am contentement si dalal bu leen dalal fii lees ñu gis ci xewu Balla Gaye ah mais loolu jarul laaj les deux ñëw si xew Balla Gaye 2 waaw loolu moom nekkul nekkul hasard nekkul tamit lu war a bett nit ñi noo mel moom. ma nekk papam rek mu nekk sama doom mu nekk sama rakk tamit am fu ma féete am fu ma féete loolu waaw hmm. ndax démb la woon tey soogay ñëw. Hmm. wax yàgg na daal. yàgg na dañ judd fekk suñu bàyyi doon ànd. lu am ñu yàlla tey li yàlla def ko mu am. kon du hasard daal ndax du moom du man suñu papa yi ñoo ko saxaloon ñun ko fi di ko dund man ma am turandoo fii si àdduna ba am relation bu rafet <laughs> loolu kay jarutal laaj loolu moom la yàlla ma sabab fi mu toll nii lees depuis de. waaw gëj ma gis si làmb ji nekkoon si ay ruq rek nekkoon si ay yitt dogaloon am doon liggéeyaat rek doon ko préparé waat te kàttu yàlla ren dina jeex incha allahu rabi. Hmm. waaw yi ñu ngi lay contacter. masuma toog promoteur du woo moom yàlla def na loolu si nit ñi. waaw yàlla defal na ma loolu si promoteur yi te at bu nekk. chaque jour boo toogee si bi doo toog deux semaines yoo déggul mbër bu nee nañ ma jox lees loolu tax ma koy sante yàlla xëy na yéeguma yenn niveau yi trop trop trop ci kaw si lamb bi wala niveau bu ma nekkoon peut-être mooy loolu mais mbër yaa ngi bëgg di bëre man samay supporters yi tamit toujours fu ma tourné ñoo may laaj kañ lay bëre kañ lay bëre promoteurs yi tamit ba léegi ñoo ngi may ñoo ngi ñoo ñoo ngi may ñoo seet tamit quoi wax dëgg yàlla ñoo may seet at bu nekk nag deux ans yi ma toog nii bëriwul yëpp man maa téye sama bopp man maa bëggul woon. lan moo waral nga toog deux ans bëriwoo mu neex la nga sa coobare boobu. waaw parce que bëriwuma pour maye sama bopp bëriwuma pour saraxa sama bopp tamit. su may bëri damaa bëgg ndam xaalis bi neex na trop waaye damaa bëgg su ma demee futteeku su meeku di bëree ñi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw su ma def su ma su ma ñibbee ñu bañ wax acam loolu moom mooy tax yabu ma sama supporter boobu yan daanaan nga daan ci làmb ñoo xamante ni tey fiñtoo ñu ngi ci kaw te ñëpp xam nañ ni ñii ay champion la ñan ndaanaan yu bëri na bëri ndaanaan yu fi bëri daan naa leen. Ah. ñoom Garga Mbossé. ay ñoom quinze victoire laa leen quinze seize seize victoire laa toog cinq défaite. waaw depuis 2007 2008 benn défaite laa si am ba 2007 ba heure bi benn défaite laa si am mooy bu ma sama diggante ak booy ñoom. benn defet laa si am mooy sama diggante boo te ñëpp gisoon nañ nu mu demee làmb la woon bëri nañ passé na jarutul ñuy wax seet na mu demee ak ay sirjaak yooyu mais yàlla def na war nañu mën a nga sama revanche moom. waaw xaw ma fu mu doon wax ko bëri moom mais Balla booy ñaa fi mu la teg bët. su am na sa plein droit ndax ndaaraan la champion la daan na fi tamit ñi nga xam war bu ko neexee mu teg ko bët. du dëgg nit ki tamit lu mu nekk tamit bu doog ko bañal doo da ko koy nangul du dëgg ba may bëre moom làmb boole wuñ man maa taxaw yàgg kiiwu ma ma dem jëli ji ko ñëw bëre moom yàlla may ko ndam sama kaw mu dem man boo ba léegi moo defet ma amaat na fi defet kon war nañ a bëre quoi loolu moom moo tax. promoteurs yi yan mbër maa ngi fi daal mbër yu ñu fi bàyyi yëpp fi mu si jox ma jël leen mbër yu ñu fi bàyyi yëpp. comme ñan comme ñan. waaw Malick Niang moo ngi fi. Malick Niang weex na de la. lu ma la wax Malick Niang moo ngi fi. Yékini si a ngi fi Reug Reug ngi fi mbër yu ñu fi bàyyi yëpp daal laa la wax pour mu pour ma gàttal la. yaa xam ne mbër yi kenn bëggul bëri ñoom nañ ma leen jox ma defaral leen léegi nga gis. mais lees lan lañ la dee ba nga ñëw. waaw dégg nga mu woon deux ay deux ans trois ans laa. laa toog taxaw xolli sama bët di xool kon bu su ma am naa droit su ma taxaw xool fu ñëpp du xool ma dem jëli ji ko wala ku fi ku ñëpp bàyyi ma dem jëli ji ko ñëw mën a waat sama bopp waaw. noo gisee wasaare làmb ci làmb. di si kontaan bu baax nag gis nañ émission yi ngeen di def ak ni ngeen koy kiiwee tamit. di ko tas mu dugg si biir nit ñi ñëpp xam lu xew woon si làmb li xew si làmb ñëpp di ko commencé xamaat parce que làmb boo xoolee dafa dafa am yu mu rafetlu woon te yéen a ngi koy dundalaat léegi ndax tey fi nga toog ngay toog xam lu xew lépp si làmb ji ak mu nekk bitim réew mu nekk Sénégal fépp si bokk yam kon seen ko setal ko rafetal ba ngeen bokk si télé yi gën a mag Sénégal su barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa trop jërëjëf Les jërëjëf gannaaw bu ma sante yàlla julli si yéent bi dama sant sama ñaari waajur